Poupette Louty Ba Amadou Niang ñoom ñëpp nag yoon daf leen lankal demande de liberté provisoire gi ñu dugaloon ay yooni yoon loole nag tënku ci ordonnance bu juge du huitième cabinet du Seck yor wàllum instruction dossier bile ñoom ci fàttali nag lañ leen di toppee bokk na ci dajaloo di defi ñaawteef violer loi wu couvre-feu jëfandikoo sinee barak itam ñakk wàllu nit kuy bëgg a loru ñoom ñooñee nag nee ñu nag ci ayu bés gi di ñëw dina leen dégg duñ ko dinañu jéemi pexe ngir génn ca prison ba ko ci mel ni Dame Amar moom naam sax ay waajuram borom mi daraja lañu ci biir réew mi baayam jëndeem si yàlla si Ahmed Amar teewul yoon moom nee na dafa lànk yi nekku ca taq laale ca da nga tëdd bu soobee yàlla. dañuy sëq jéegu daal di wax naka ci wàllum politique wax ci Ousmane Sonko mi nga xamante ni naka mbënd bee ko soxalul mu dem ci banlieue boobu Ndakaaru moom mi njiital Pastef di Ousmane Sonko ci directeur général bu ONAS di Lansana Gagny Sakho ci ay laaj yu mu bëggoon ay tontu ci wàllum assainissement bu Ndakaaru njaay audience googu nag ñu taxawaloon ko ba noppi ñu waroon koo amal sax aljuma gi nu génn waaye nag naka la toq ci noppi njiitu réew mi Macky Sall mu daal di mer ba futu daal di sàkku ngir ab annulation boobu leen daje ci nu mu gën gaawee comme ni nu koy waxee nag waxi buur nag waaw la sant ca la njiital ONAS nag daal di tàffanto rendez-vous laaj gi samp nag mooy ndaxam du Ousmane Sonko document yi mu ne moom la yor ci wàllum assainissement ak koppar yi ñu ne moom lañ ci def toll ci 765 milliards dara amu ci ak lum ci mën ci doon nag tuuma moom deesu ko setal tubaab naan ko nag kii na di rien consent tutelam ga sax di Serigne Mbaye Thiam la ñu ordonné ngir mu daal di freiné DG bu ONAS laata bukki bi matt maître Moussa Diop njiital Dakar dem dikk di ko matt ci wàllum politique la ñuy desandi wax ci troisième mandat bi nga xamante ni jamono ji doom bu góor la ci biir réew mi ku ko tudd rek xiir wi dalay dal coowal troisième mandat bu président Macky Sall bu mel ni noppeegu la Moustapha Diakhaté bi la yoon Aymérou Gningue di président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar démb ci grand jury bu RFM la xamle ni ci wàllum yoon président Macky Sall mën na defaat troisième mandat ndax yoon moo ko ko may dem na sax ba naan euh, président Abdoulaye Wade ci atum 2012 yoon mayoon na ko ngir mu présenté wu waat ngir jël réew mi ñetteel bi yoon waaye askan wi nag ñoo taxawoon ne ko du ci dal monte de euh, conseil constitutionnel ñoom ñoo ko nanguloon ci kaw texte yi bindoon Basirou Gningue la daloon Moustapha Diakhaté maître Moussa Diop lay bañ mu dal ko moo tax mu ne aha kay troisième mandat moom Macky Sall yoon may na ko ko ba dee ci mim réew fàtte nag dafay xajul ndax ba ñu njoxtee ne Abdoulaye Wade lu nu mel lay waajal caatum 2009 ca la moom mii Macky Sall jël couleur beige marron daal di taxawal partem ga jël nguur gi ci atum 2012 ñu daal di àddu jëm ci carnet rose wax ci sumbulu bàcc li waaw sumbulu bàcc li mu siiw mi tey jouer théâtre moom nag am na jëkkër wala boog day waaj a am jëkkër alxames lañu ko jàpp Serigne Abdoulaye Diop xaas ñu ràññee ko lool ci réseau sociaux yi nekkee te borom xaas TV mooy doon boroom këram 6 millions wala boog juróom benn million ci suñu koppar la ko jox may ku njëkk moom sumb lu nag yàgg nañ ko déggal ay ngoro yu bari déggoon nañ fi digganteem ak Sanex Cheikh Ndiaye ñi nga xamante ni sax ñoom la bokkal troupe théâtrale ginnaaw bi moom ak l'international sénégalais bi di Mbaye Diagne ak itam déggoon nañu woon nañu lool ci seen diggante woowu waaye coowal ñaari famille yi naka taxoon ba sëy boobu mujjul antu naam sax defoon nañu ay at yu baree bari ba nga xamante ni ah, kii di sumbulu Soumboulou Bathily nëbbul woon digganteem ak mbay jaañ moomu ba doon xamle ni sax ci réseaux sociaux yi YouTube ah, Facebook WhatsApp ak Instagram di xamle ni rek moom mi di Mbaye Diagne international sénégalais bi moo koy teree nelaw ba tax xalaatul benn yoon di nekk ak keneen ku dul moom doon sàkku te ci askan bi ñu ñaan leen ba ca mujj nag nekk digganteem ak Mandiaye Seck nekk doom ci Ousmane sekk ñu yàggoon lool di génn waaye mu mel ni naka xeebel daf ci dugg ndax moom mi ah, di Mandiaye Seck nag ku bëggoon sumbulu la waaye sumbulu dafa dem ba ca digg ba daal mu commencé di ko xeeb ndax ay far yu bees ñu mu doon am ña mu doon nekkal kii demee noonu sumbulu bàcc li nag indi coow ak i wax yu sew Mandiaye Seck daal di takk soxna sumbulu nekk ci diggante bi di rugube comme ni ko xale yi di waxee ak ay ak i photo mu doon di ko yónnee kii di Mandiaye Seck ba tax yooyu la vidéo ak i photo daal di tàbbi naka ci soxnaam sa moom mi naka mer ba futu ginnaaw ba ñu defee weer kepp ci mariage moom moom soxnaay Mandiaye sekk na daal di meroon ba futu daal di génn nag jëli bagaasam daal di ñibbi sa këram ndax moom ba ñu ko laajee sa la mu xamle mooy ne nag mënuta marié amul sax benn weer kii di ex jëkkëram naka topp ji sëy bi nekk ci seen biir di ko kalañ kalañee loolee nag moo seen kër ba fu ñuy àddoo nii jotuñoo sax arrangé ah, ba tax ndaw sax ma nga seen kër daal di toog moom Soumboul Bathily nag ginnaaw ba mu daal di ah, yàqee diggante boobu nga xamante ni moom mooy ah, diggante Mandiaye Seck ak ki nga xamante ni moo di soxnaam moom Soumboul Bathily daal di toog këram ndànk kii di Serigne Abdoulaye Diop xaas moo ñëw daal di koy ñaan li nga xamante ni moom mooy mu sëy ak moom moom Soumboul Bathily nag daal di ne ko waaw danaa la sëyal juróom benn million ñu teg ko ci loxoom soxnas Mandiaye Seck ñibbi ubbi seen kër moom lu Soumboulou li jamono ji nag sëy di ko yoot ci digganteem ak Serigne Abdoulaye Diop xaas ñu koy ñaanal lekk yàlla bàyyi ko ci biir sëy wowule dañu koy ndax keppeek point Covid 19 maanaam tolluwaayu mbas mi fii ci biir réew mi tey jii yem moog altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre ci test yi ñu def nag tollu na ci juróom-ñeenti téeméer bu toftal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay test yu ñu def ci loolee nag am ñaar fukk ak ñeent yu ci ñëw te ñoom ñooñu ñoo laale ci mbas mi di Covid 19 tey jii amul benn nit boo xam ne ñàkk na bakkanam ci mbas mi ci biir réew mi waaye itam am nañu lu toll ci fukk ak juróom ci ay cas euh, contact yoo xamante ni maanaam dañu leen daal di topp ba xam leen dañ leen daal di euh, topp ba daal leen di méngale koo xam ne amoon na jàngoro ji ci loolu am na lu toll ci juróom-ñeenti cas yoo xamante ni ay cas communautaire lañ maanaam xamuñu fu nu laaleeg mbas mi di Covid. 19 waaye nag am na lu toll itam ci euh, téeméer bu toftal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay euh, ñoo xamante ni aji tawat lañ yoo xam ne wér nañu ci mbas mi di covid 19 ba tey jii euh, daañu ñibbi ci seeni kër ci loolu itam am nañu ñaar fukk ak juróom benn kaa yoo xamante ni naka seeni jamono ji seen wér-gu-yaram dafa tagg bi ba ña nga ca réanimation loolee nag buñ ko tënkee nag ci bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi nekkoon ñaari fan ci weexu mars atum 2020 gi nu nekk nag bu nu ko daal di xaymaa nag toll na ci fukk ak ñeenti junni bu toftal nag juróom-ñaar téeméer bu toftal fanweer ak juróom-ñetti cas yoo xamante ni am nañ ko ci ay cas yoo xam ne nañu ñii amoon nañ nañu ci mbas mi ci lool itam xayma nañ lu toll ci fukk ak benn junni bu toftal ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoo xam ne wér nañoo péng ci mbas mi ba ñibbi ci seeni kër ñetti téeméer bu toftal ñaar ci ay doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi di covid 19 am na ci kenn koo xam ne delloo nañ ko ca dëkkam nga mu jóge woon ginnaaw ba mu ko sàkkoo amit lu toll ci ñaari junni bu toftal juróom ñeenti téeméer ak i tamit juróom fukk ak juróom yoo xamante ni jamono ji ñu ngeeg mbas mi nekk ci centre de traitement yi ñu leen di daal di traité loole nag dañ koy daal di tas ñoom cas communautaire yi ñu am tey ñu tas ko jam ñaajo benn fan benn fan ok benn géejuwaay benn kéedugu benn mbaaw benn mbuur benn waagu ñaay benn ak wakkaam itam benn cas lañu am fii lañuy ndar képpee seen actualité du jour